sama lepp di ko ñaanal yalla yàlla sama borom xara aljana di gërëm sama gaay di di ñaanal jelmaan yëpp képp ci ab fiir ginaaw bi la ñaanal nga delu ci si nga nekkon di nuyu jelmaan yëpp di nuyu sama boy ñom Cheikh Ndiol ñom ñom borom yépp alaaji Mori di nuyu ñëpp képp dëgg jamm képp képp yu doom adam ko nek jël ñu lay ñaanal nga ñibi ci si jàmm di ñaanal ñu tedd ci hôpital yi waaw mu ronda ma lay fay di la ziar bu baax nga yëkëti kaddu gi bu baax fo tollu ci waccay bi ko li waaw Amadou bala may wax ci lolu boo gisee li war a moo moo woote point de presse. caare dañu am naqar. dafa am suñu mbokk yoo xam ne famille lan. famille. yoo ñoo réer ci géej gi depuis le 9 octobre doon départ woon ba tey le 9 di si ñaata un mois mu doon naqar bu naqar bu ñu métti ñun ñëpp ñu lancé ñëpp message di woo marine nationale ñu wax ñu dimbali ñu si loolu ñu seetal ñu suñ suñ suñ suñ suñ mbokk yooyu. famille lañ te fi doon def waa Feen ñu jaale waa Feen yëpp di leen ñaanal yàlla yàlla suñu borom nit. ñu ngi leen ci jàmm naqar woowu daal moo tax ñu bari dañ ma mere ci lu tax def ma open press mais naqar woowu ñu am noonu moo waral def ñu open press ak suñ mbokk yi ñu téye ci Maroc ñu ñaan ñu ñaan ñuy woo ambassadeur Sénégal bi nekk Maroc dafa am suñuy doom yoo xam suñuy doom réew yoo xam ne fii lañ dëkk caara yi ñu téye leen ci Maroc dana dem Espagne jàll ñu xanaa kay doomu jàmbur boo ko téye ni nga mën a bàyyi mu ñibbi ñun saaj ñu fen dañ doon daan seen doole di wuti luñ dimbale seen njaboot ñu téye leen fa di boobu léegi Maroc yàgg na jox ñu la ñu lekk lekk ñu lekk ñu baax du ñu dund gu baax boo déggee ni ñuy waxee sax benn pain wala bu cent franc leen jox benn jus bu cent franc loolu yoon depuis un mois boobu la ñu téeleen fa kon ñu ngi ñaan ah loolu marocains yi neen ñoom ci assemblée Sénégal la des kon ñu ñaan état na wax si loolu ñu dimbali si loolu ñooñu suñuy doom lañ suñuy mag suñuy rak suñuy yaay ñoo fa ne ay famille yoo xam dañ leen téye foofu ñu bokk la ñu réer si géej kon ñu ngi ñaan état mu wax si loolu ñu bàyyi la ñu ñibbi si ba dellu si li nekkoon macha allah explication bi leer na léegi fan nga toll ci wàccaay bi pour dimanche le 12. waaw dimanche moom parewul ba heure bi dara pare parce que amoon di ñaar trois jours. waaw ah. teel a jeudi vendredi samedi dimanche. waaw parewul ba heure bi dara pare. Mhm. kon dañuy ñëw rek confirmer rek moo des. Mhm. Mhm. lan moo boole ak adversaire bi. waaw lamb la rek ak tolof tolof lamb ak tolof tolof rek moo ñu boole. ñu war a moom te dañuy jëflante incha allah. jafe-jafe nga wax moo leen boole tolof tolof. ci adversaire boo xam ne ci dynamique de victoire la xale boo xamante bi nii géejawaay dañu am yaakaar ci moom lan moo la boole ak moom nga ne tolof tolof. waaw tolof tolof rek Mour Anta yoo xam nga ne si yow sa bopp yow may posé question xam nga ne fu doon tolof tolof nga booy bi duñ daje moo doxee noonu dara xëyul koy sotti yàlla suñu borom amaana moo ko bëggee nii sama jaajaar il faut dama siy jaar ma bëgg dama siy jaar ba bañ dama siy jaar. Mhm. il faut ma jaar si. Mhm. loolu kese la mais dara. Mhm. chaque jour muy confirmer que day jëflante yow boo taxawee mu xeex a yow bëree yow daan la dem ñibbi géejawaay. waaw c'est normal loolu la war a gëm parce que moom sama adversaire la bu gëm loolu lan leneen lan lay gëm c'est normal mu gëm loolu waaw loolu dama koy nangul. Mm-hmm. Mm-hmm. état bi jàpp na leen euh, beneen bi mooy comme loolu ñu lu nga doon xëy na moom xëy moom dafa am lu ñu ci xam rek xëy na am lu ñu ko ci wax rek mais moom dëgg fa yàlla moom am leneen lu gën làmb ku xam làmb ko da nga xam eh, ko da boobu dafa juum quoi ah. mais sant su may xarit yëpp képp ku ma jàppale mais sant képp ku ma bokkal ci wàllu papa samay mag samay rak samay xarit samay jarbaat samay yaay sama famille yaay yu dëkk Cambérène waa Waalo waa Ñongeen waa Ñengeen waa Faaleen waa Njóobeen Fayeen Ndeyeen bàyyi ma kenn may sant ñëpp sama gërëm ñëpp di woo caare gépp caare jàmm gan lamsaar samay xarit dargi ndaay bi ma ñëpp dawee samay gaan laa dese bi ma ñëpp mhm. samay gaan kër laa dajee ak darki ndaay ak sama waa écrit bu doon dama amul lu dul sama waakir kër ñii barki Seydina re am deureum kali lek di len bàyyi ñii ni yalla mo am dañi sama sama bés da len jaral lu ne barki alcorane damay teud sama gàlle di nelaw soñu ñu jël ci entraînement chaque jour xam kon xam nga kon mo ñu bu dekk lay dara man ki ma gënal ki ma may contact la gëna respecté ki ma may xaaliss hmm. Ah, di li nga li nga bëgg mënoo koo am fii moo tax nga déplacé wu dem ci fii. non non Dionewar dem fa ren fa daaw jóg yàgg naa fa dem dama fa war fa liggéey moo fa yóbbuwoon liggéey naa pare ñibbisi naa loolu rek moo fa dañuy ñëw ci ci ci combat bi keroog dama ne ko xale bi ngay bëreel mi na géej waaye mosu fee am defet mu ne boo jaaran ci moom. doo daan doo jot daan ñetti garaam yooyu muy ay Youssou Ndour ak Ould ay Maguette Seck. Guédiawaye maire bi laa soxla maire bi. lan. maire Guédiawaye laa soxla. mu bëgg a remplacer Boy Niang. laa soxla. Boy Niang li mu jël maire bi. waaw ah, Boy Niang kon kon jël municipal bi. wala nga ma nekk préfet préfet Guédiawaye. daa ma nekk mais est-ce que xale bi dina la ko may parce que gis nañ ne fonk na combat bi te ci wàllum état progressé na ci macha allah. non man ma dugg yàlla ñaan ma ko dara man moom Cheikh ñaan jàmbaar la da muy def li mu war a def échange lu waay wax rek na nga yàq say wax jour yi soreetul mhm. ok ñu gis na combat bi boo ci amee ndam mën naa defar sa yoon mais boo si ñàkkee ndam parce que ñaar yooyu fi nekk mën na la dugal ci saako bi koli combat fan la la toll ñaan ma yàlla dugg saako muur ànda combat bi fi ma toll fi ma yéen combat la ma toll rek mhm. daam la mooy mais nee na bu jaree xeex ak bëri na pour xeex ak a seet seet na ma loolu dina leer war ma ja gëm na ko gëm ko loolu yëpp dina la su ma naa ko nawle su ma deful mbokk def naa ko mbokk su ma deful xarit def naa ko xarit lamb moo boole man ak moom lamb la bu jeexee jeex na amul leen damay nekk xam mu nekk fi dàgg seen moom dëgg fa yàlla ah. aw ma boobu sax Mm-hmm. état physique bi gis nañ ne Modou Anta. Mm-hmm. Euh, ki bi ba ci seen vidéo yi kon ko laajoon da cee dañoo moo tax nga kii ci côté entraînement yi ci ligne bi ko xam. non c'est que xam nga man dama liggéey de laamu ji man dama ci daj ay coono depuis avant ñuy màggal laa génn sama laa génn sama kàlla avant laa bi déglu si pare. maa génn sama gàlle bin màggale par laa génn sama gàlle hmm. dem loolu nekk sama rox ànd sama xarit sama doom day sita ñuy liggéey bu jigéen bi dem Gambie Gambie def naa presque un mois xam ñi bi dama jon waa dafa un mois ma sant mbëri ñoo joor yëpp nag li ko dalee Cheikh Yane Niang ETDR établissement Touba Darou Rahman de entreprise bu mag le BTP travaux de bâtiment génie civil madame lépp lu jëm ci réhabilité voilà réfectionné dañu outil taxaw établissement Touba Darou Rahman